tey nga jékki-jékki récemment nga gis Laye Diagne ñu ñu ñu rendre ko hommage si si si bi nga xam ni def ci musique sénégalaise loolu mu lay def en tant que son frère. mbégte mbégte la musique sénégalaise waroon na ko delloo depuis des années il a beaucoup fait pour la musique sénégalaise il a beaucoup fait pour les artistes les artistes ont tourné partout donc euh, Laye ku ñu yàgg may doole la. tey lu mu xewlee lu LSD record dugg foog Sénar Vision dugg ci su def Zénith laay mooy directeur artistique bi su may def Bercy ñu doon def Bercy Wally Seck laay moo nekkoon directeur artistique bi événement internationaux yu ma mënti def tam laay moo ci nekk ci biir kon il au début et à la fin Tafa Sénar Vision Tafa l'homme des grands événements ko xam Tafa xam ko ci événement yu yu am doole récemment déggoon nañ événement bi nga xam té tey Sénar Vision def defoon na mais lan la lan la public bi mëna xaar ci Sénar Vision ci innovation yi nga xam ne ni tey jii war na ko apporter ci ci ci game bi. non Sénar Vision déjà Sénégal la c'est de l'art et on a une vision donc ñun duñ jog ci lolu euh, di ñi ngi innover ñi ngi fexé artistes yi jall artistes yi génn parce que nous, nous leen mën a may doole tu donc Sénar Vision looloo tax ko fi on est en train de faire beaucoup de d'activités là actuellement on est en train d'organiser les événements de de Kirène demoon nañu ñu ngi 31 décembre on est en train d'organiser les événements de Orange euh, le 27 décembre on organisé organiser méga concert de Thiès loolu que am solo vitrine boo xam les artistes yi jouer. Donc, ci jouer donc loolu ñun temps bi ñuy nekk ci game bi amuñu ko woon amuñoon ay mag yo xamné dinañ ñu soutenir may ñu doolé pousse ñu ñun ñëpp té loolu lañu ñu bëggal booy génération bu bëss bi wutal leen ay vitrine yo xam dinañ ci mëna exprimer est-ce que seen Art Vision aussi pare aussi pour liggéey avec les grands artistes et les grandes artistes quoi tey artistes yu mag yi comme tay ku su mel ay Viviane et consort non Sénar Vision dego Sénégal la scène bi Sénégal lay tekki képp ku bëgg a ak Sénar Vision Sénar Vision talana la loxo ñëw ñu liggéey Sénar Vision du pour ma samba wala ma demba c'est pour artistes Sénégal yëpp Sénar Vision talana leen loxo donc à travers cette voix maa lance appel des fois conseil des fois production des fois accompagnement des fois organisation la ñoom ñëpp képp ku bëgg ñu jàppale la nga ñu jàppale la. lan la artistes yi war a xaar ci art vision. de l'accompagnement, c'est ce que je viens de dire on va les accompagner les orienter may leen doole xam nga jàppale leen ni labelu international yëpp di def jàppale leen. leen ni labelu international yëpp di def tey musique Sénégal noo ko musique en tant que en en grosso modo quoi musique musique bi quoi muy hip hop muy mbalax muy quoi. bu dé mbalax bi il faut que ñu dulier ko Senghor daf doon wax ouverture et enracinement il faut que artistes sénégalais yi génn def ay featuring dem ci yenen dëkk yi way ak ñenen lolu moy am solo mais bu ñu tënkoo ci mbalax bi rek juleewuñu suñu mbalax pour mbalax bi génn ñu jaay ko day jafe il faut que gars yi wutal ko ay orientation xam unis da gis ñaari rappeurs yu mag de futur ñoo xam ne dañ def benn mixtape ñoom ñaar xam nga ne dara mais loolu gisaguñ ko ba léegi ci ci Sénégal gisoon nañ ko ci Youssou Ndour Omar Pène mais pourquoi pas tey jii nii mënuñ ko gis tey jii nii si Wally Seck Pape Diouf keneen ak keneen aussi waaw yooyu yëpp mën ko def mais xam nga ci liguey rek la wara yam elle ne doit pas être malsaine ci yenn yi. est-ce que seen Art Vision pare na pour pour djema link lolu non ñoom suñu ko bëggee lolu idée la mais man sax waxatuma sax waxu ay Wally Seck ak ay pap Diouf wala ay keneen ak keneen. ou bien la, la nouvelle génération. non nañu génn man je parle d'ouverture je parle sur un plan beaucoup plus large na artiste yi génn dem seeti ay def ay featuring ak ay artistes nigériens ay Tchad ay Burkina Faso yoonu ñooñu dañu am yeneen culture yoo xam ne dafa riche foofu lay wax ci échange dem Mali dem Guinée def ay affaire yooyu ubbeeku parce que loolu mooy ouverture bi ñuy wax enracinement ñun dañu enraciné wu ci suñuy valeur léegi nag ouverture et enracinement la Senghor doon wax donc ouverture bi mooy dem artiste sénégalais il faut ñu ubbeeku artiste sénégalais yi foog ñu ubbeeku Tafa yan artiste la téye si loxoom mu pare pour ubbi leen non ñëpp wax la du Vision c'est un label sénégalais. mais mais mais comme label bi artistes label comme genre par exemple Badou label nous on travaille avec plein d'artistes aujourd'hui nous, artistes en production mais ñi ngi en distribution nous, ci en production mais ñi ngi en accompagnement spectacle événementiel ñun label genre un label nous, la un ci un label. nous, ñu un wala ñett rek. un label.

Cos Couture dañuy def di faté dañuy def di faté duma cité kenn mais ñepp ñi ñu may doole ñom xam nañ xam nga ñi ñu scénar Vision may doole ñi scénar Vision pousse ñi scénar Vision jëfal wala défal defal leen aajowuñu wala baaxewuñu di def di wax quoi tu vois amul solo. bientôt on va dire bye bye 2019 ñuy dugg ci 2020 lan ngay wax internet yi rawatina ñi nga xam ne dañuy bëggee Tafa rawatina scénar Vision. wa 2020 moom foog affaire yu concret xew ci domaine bu nekk nag. tu vois Sénégal yokku sénégalais yi yokku yokku ndam ñëpp am ndam ñëpp am jàmm.